dama xëy ànd ak samay service ak le préfet du département Dakar pour ñu visiter yenn chantier yi bu ci jiitu mooy ba Bourguiba avenue ba ba nga xam ni amoon na chantier bu am solo bu buñ ci doon waaj a def mu doon auto pont yi nga xam ni ñu ngi koy gis bii Saint-Lazare bii Cité Keur gi bi Yoff amoon na benn boo xam ni prévoiroon nañ ko maanaam ci ba mais damay wax ni Dakar maanaam dafa nekk dëkk boo xam ni ci maam ci tolluwaay dafa tuuti waaye ci lu mu yanu ci ay infrastructure lu mu yanu ci ay askan dafa nekk lu rëy lu bëri donc boo amee dëkk bu mel noonu donc ci da nga ciy def ay infrastructure yu am solo loo tax président de la république dans le cadre du PSE mu def maanaam mobilité urbaine def ko priorité loolu moo taxoon maanaam pour wàllum transport mu ni BRT mu ni TER et cetera ci wàllum infrastructure aussi même bu ñu yokkee tali mu ne dañ ciy defat ay système autopont oto pont yooyu nag dafa am lu ñu prévoir woon au niveau donc de Bourguiba waaye bu ñu boolee projet yëpp BRT et cetera dañ dañu xam ne oto pont bi xëy na war nañ ko mën a bañ a def Bourguiba loo tax mu indi changement lu ñu waroon def ñu ne léegi Bourguiba dañ koy defaraat def ko deux fois deux voies def ci ay contre allées def ci ay aménagement paysager de telle sorte que ni maanaam circulation bi dana dana gën a yomb ci axe boobule te du wàññi dara ci lu mu bëggoon def loolu moo indi changement bi moo tax ma ñëw xool ko waxtaan ceeg le maire donc de donc de Dieuppeul waxtaan ceeg quelques populations yi ma fa fekk pour dalal seen xel ni li ñu fa nar def comme ouvrage dafa nekk ouvrage boo xam ni à la mooy indi ëpp rendement maanaam pont bu ñu fa def parce que dañuy boole lépp pour que système autopont yi système feu yi système circulation yi nu koy policiers yi di ko doxale bu ñu ko boolee maanaam mu nekk loo xam ne di indi amélioration de circulation mobilité urbaine au niveau donc de au niveau donc de Dakar donc loolu dafa nekk lu am solo. waaw boo sëg bu nekk liggéey bu am solo. ñu bëggoon xam rek euh, euh, ah. damay tàmbali samay kaddu fii ci Cambérène pour yëkkati ay kaddu ziar teg ci loxo porte parole. mu jottali ko xalif général bu Layeen di ko ñaanal fan yu gudd ak wér-gu-yaram taxawaay porte parole taxawaay bu rafet la euh, xam nañu digganteem ak président de la république ñu ko ci gërëm bu baax di sant ci loolu. fekk si fi monsieur le maire de Cambérène ba ma ñu aussi ànd ak le le le préfet du département donc de Dakar fii liggéey bii ñu gis ni mu nekk liggéey bu rëy. yaakaar naa liggéey bi man point yu mel nii sax man mi ndëkk Ndar gisuma ko parce que Ndar xam nga foo dee waaye li ñuy wax donc dafa nekk lu am solo mu nekk liggéey boo xam ni ci cadre bi ñu nekk mooy muy bërëb bi mu nekk bërëb bu tedd dafa méngoog bërëb bi parce que loolu la population yi buggoon loolu la président de la république def parce que fii ñu taxaw VDN 2 bi la muy dem fekki VDN 3 loolu bu ñu bu paree day nekk circulation boo xam ne pour génn dakaar yoon bi day nekk yoon bu bu baax boo xam ne mën nañ fay jaar te dana yombalar circulation bi mu nekk liggéey bu am solo. nee naa liggéey bi la ngi laaj koppar yi li ñuy wax bowstring xam nga nu ñu koy wax donc à peu près quinze milliards la mais xam nga bu ñu liggéey bi jëkkoon na pare waaye population yi dañ ni miir bi miir bi miir bu ñu na bëgg def daf leen di xaw a gêner pour ñu mën a am accès ci géej gi président nangu loolu ni léegi day chan day day def lu population yi bëgg loolu moo tax mu yokk yokk yokk distance bi de telle sorte ñu yokk ci lu toll na sept à huit milliards bu fekk c'est quinze milliards ñu ci vingt deux milliards ak travaux bu ñu ko wala du sori vingt cinq milliards yi mu nekk liggéey boo xam ni en tout cas Ageroute ak entreprise bu koy liggéey dañ nekk dañ ci taxaw taxaw bu am solo moo tax lii sori nii entreprise nag nee na man dama wax lu leer nee na octobre bu neex yàlla dañ ko dana livrer chantier bi te gëm naa ne nii muy avancé bu soobee suñu borom octobre dana pare bu pare nag nañ ñaan ànd ak ànd ak ñëw porte parole xëy na président bu fekkee jotam may na ko mu ñëw boo ko jota mayul daañu am autorité yu am solo ñëw fii maanaam inauguré li nga xam ne liggéey bu am solo te ci biir liggéey bi aussi dañ defaraat yu bëri am na ay yoon yoo xam ne dana dugg ci biir commune bi maire bi wax na ko lu ay soxlaam la wax daañ ci jëm a taxaw defaraat miir bi nga xam ni moo wër moo wër bërëb bii mausolée bi moo ko wër mu nekk dañ koy defar defar boo xam ni dana méngoog maanaam environnement bi euh, ci liggéey boo xam ni incha allah rabi population yi daañu ci Thank you.